ndaysaan combat spécial baa ngi noonu avant ñuy jëm ci grand combat bi avertissement Libidor mu dox ci diggante Libidor ak Nguer bu Zap arbitre bi sifflé na mbokk yi ñu ngi ci dimanche 11 juillet 2021 arène nationale events ndaysaan grand euh, spécial bi dox ci diggante Libidor ak Nguer Nguer daw na jëli Libidor dinañ xeex ñoom ñaar jàppante nañ Libidor Nguer Nguer rek jéem a dindi jàpp bi dóor na plaqué na Libidor bañ na Libidor bal na ko na lu wadd daan na Libidor Nguer bu sab daan na Libidor Nguer bu sab daan na Libidor Nguer daan na Libidor ngeer daan na Libidor ndaysaan ngeer bu zap daan na Libidor ndaysaan ñuy wàcc grand combat bi boy dama leen mën mais maa ngi sant yàlla waaw waaw yow moom dama lay sant la gërëm di la ñaanal yàlla nga dem yor télé télé bi nga nekk yàlla la jik muy ci Bécaye suñu père maa ngi sant yàlla bu baax yàlla moo ma doon xaj yàlla moo ma may waxuma dara kenn mayu ma ku dul yàlla suñu borom. mais fi nga la yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. loolu rek yàlla ñëpp jàmm. waaw maa ngi koy bëggee borom Espagne. waaw mais mais mais est-ce que bi nga bëree tey. bon Nguer dafa mën a bëre. jërëjëf yàlla suñu borom. ah Diop Baye. tey ci yoon ñii du samay adversaire ah yàlla yàlla def sutura. Nguer na fan la jëm. yàlla bëri na sutura. yàlla bëri na sutura.